ak ulama ak borom xam-xam yi ak tabaarakallaahu kilifa diine yi tënku ci géejawaay te mbir mi bett leen te ñu nekk di collaborer ak Baye Xaajaale Njaay minute boobu moom tamit dina ko jël gàttal ko lool balaa timis ji dugg dalale la ko bis bi comme ni ko xamee tabarakallah ba mu tàmbalee ba léegi almasiixatu la budda min siyaasati muluki le maire bu Géejawaay Alioune Sall fii la toogoon ànd ak ndaw yi nga xam ni sa lépp sa xarit sa soppe le président Macky Sall yebal na leen fi mu yebal soxnaam mu ñëw toog fii soxnaam Marème Faye Sall yamu ci njabootam gépp ñëw maire dafa yéex a yëg mbir yi te fekk ko Géejawaay waaye tabarakallahu Mor Seck dana yëkkati moo tamit une minute ci turu Seydina Ali ngir dalale ko sa jëmm ci yi ndax gan gi kat ganu ba Alxaaji Alay Njaay ak njabootam waaye gan ville de Guédiawaye la bu ñu noppee nag tabaarakallaahu foofu laay yëkkati kàddu ga ñu jëbbal la ko waaye balaa loolu ku mel ni alxaaji Abdoulaye Mbaye danaa ko jox mu présenté délégation bi nga àndal alxaaji Lamine Thiam mi ngi fi am na ci minute suñu yaay alxaaji Bekaay moom itam ne xam na ni bis bi mu amee ba léegi ñoo ko ànd dana ci yëkkati minute bu ñu paree nag kàddu delloo njàll yi nga xam ni ginnaaw sa kàddu yi nga xam ni moo fi bàyyi ñëpp moom la ñëpp di xaar incha allah dinañ la ko jox bàyyi Ablaye Mbaye bàyyi Ablaye Mbaye nee na sëriñ bi farata la koo yëkkati mu ñëw di jaale nee na ki muy jaale nee na sëriñ bi boppam lay jaale nee na moo tax mu bëgg ku ne xam ne Cheikh Abdoul Qadir Mbacké way juróom ak julli imam nee na abdul Abdoul Qadir daana wax ni mënuma ku ne ma jox la loxo waaye mbooloo bi nag mën naa leen xool ba tub yërmande mu bëgg nag ñu tënku ci loolu nee na li ko fi tax ñëw ba ca jëkk sëriñ Abdoul Aziz Al Amine nee na ni mu mel ak sëñ Abdoul Aziz Almi turandoo Abdoul Aziz Ndiaye bii sëñ Abdou di magam bëggoon ko ak jikko yi bàyyi aale ak yar bu mu yar njabootam te rek tax koo jóg ko tënk ci loolu tabarakallahu nee kon tabarakallahu kon sëñ bi ñi ma tudd damay jotal seen teewaay ñu yëkkati kàddu gi jox la ko insha allahu taala ne nuyu bu baax a baax ne ni lislam lislaam santaane assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ne Sëriñ Tuubaa da ko ne asalaamaaleykum sëriñ Tuubaa ne ki nga koy wax baa yow sori nga lu ñuy tere ne wa salaam nag mu ni la mu ni waaw ngeen ko kon kat da am jàmm mu ni ko baa jàmm nga am baa yaa ngi ci ndigali yàlla yi mu jàmm rek mu ni ko kon kat da am texe addina ak ne sëriñ bi ne bu ko defee nag ka gën a xam morom ja borom ba na ci jëme moom na ci jëm moom waaye bu mu fa wax luy sànq waxtu kon jataay bi danoo ñëwoon ngir siyaare si di jaale si ni ko lislaam santaane si ki fi bàyyi ko ñu gunge ko jaale ko ñaanal ko ne ndax ki fi bàyyi ko mu dafa am soxla fa mu tëdd la mu soxla fa mu tëdd mooy jéggalug yàlla ak yan mëndeem ne kon yàlla nag ko sunu borom defal tabbal ko àjjana ni ñu ko yaakaare ne di yëkkati nuyoo bi nag di ko teg ci loxol sëriñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour mi nga xam ne mooy tey mooy xalifa général de Tidiane di ko nuyu bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi ànd ku wér ne njabootam gi topp ci ginnaawam gépp ne di nuyu sëriñ Pape Malick Sy ne mi nga xam ni tey ne mooy xalifa sëriñ Babacar Sy ne di kilifa njaboot gi ne moom ñu koy ñaanal ñu yàgg topp ci ginnaawam ci ginnaaw magam sëriñ baabakër Sy bay si ci nga xam ni nag mooy seen kilifa bopp di sëñ Babacar Sy moo sëñ Abdou Aziz Al Amin moom it ñu koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm nee di fedd li nee li nga xam ne moo doxoon digganteem ak waajuram sëñ Abdou Aziz nee tamit mu jàpp ko lool nee lépp ci kanam sëñ Babacar Si la waaye mu jàpp ko nag moom njaboot ga yépp nag moo tax seen tànk tey yi ak tànk tayam yi tànki tayam yi ne loolaa ko indi ne teg nuyoo bi nag ci loxol sëñ Ali ni nga xam ne yéen mooy seen waajur di seen kilifa di seen lépp ne diggam ak sëriñ Abdou ne adduna bépp xam ko ne sëriñ Abdou moo doonoon léppam moom it muy léppam kon lépp la ci moom kon ak njabootam njabootu sëñ Abdou la ne du nuyu Abdoul Aziz ne di la jaare ki nga xam ni ne moom nga ñàkk ne te mu ci yow lool ne loolu lu mel noonu bu xewee ci nit koo mul ngant rek war nga ko ànd ak moom ne loolu kenn du ko weesu am njaal ak jokku bopp kenn waru koo weesu ku ko bàyyi ci lislaam rek bàyyi nga kenn lu rëy rëy ne moom nag yàlla dafa def li ñu boole mooy turandoom di sëriñ Abdou Aziz ne moom yàlla da na boole moo sëriñ Abdou Aziz ne xam ngeen ni soree nañ ci at lool ne 1928 la war a doon ne kon fi mu toll ci yet mboolem ku fi mas a nekkal sëñ tuwaay di suñuy kilifa di suñuy sëriñ ne jëflante na ak yow ne rawatina Cheikh Madou Fadal Mbakke ak Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir Serigne Saliou Cheikh Mouhamadoul Mourtada ba seen ginnaaw ne lu mas a xew ci Touba. ne sëñ Abdou li muy mage mage dem na ba tële ko waaye sëñ Abdou ñëwoon bopp te amoon nay ndaw yu mu war a yónni yoo xam ni kum ci yónni mu doy sëg kon bu doon bàyyi ay itteem di ñëw lu mel nii taxoon ngir bëgg a gën a defar diggante tuubaa ak Tiwaawoon ne sunu borom nag may na ko ci résultat bu wér boo xam ne kenn du ko fàtte saa su weeru koor masaa feeñ ba tabaski wala yeeru weer wi ne sëñ xalifa doo moo ko ko jox téléphone mu laaj ko wax na ba xam gis nañu weer wi wala déet ma jottali ko Cheikh Sidi Maxtaar ne kon moom la ko waroon lépp ci biir réew mi ci tarixa yëpp ci Sénégal yëpp ci àdduna sépp def na ko ba matal ko ne moom nag digganteem ak sëñ Abdou Al Amin ne defaruk sunu borom rek la ne yéene ji mu amoon ci moom ne mënu ko nat ne ku mas a wéetal ci njabootam ci ay taalibeem wala nga di xaritam سنين على الشيخ محمود البصير رقم جي موتاخ طالبين ييب دي اي ولالين دي نجابوتام موتاخ ديس كو مانا فاتيمو ني يال دافا تاي تيوبا رك محمود مختار سيسي ministre energy ñewna kërëm ñuy waxtaan lu yag waye lepp ci wax ja señ abdou assi alabi ne ko mom ndax yàlla def na sëñ Abdou moo ko boole woon ak moom ndax xamante woon nañu bu yàgg waaye moom ci boppam nag moo ko ni damaa bëggoon Cheikh Madul Bachir nga jógee fi dem seeti ko siyaari ko jokkale sa digg moom ndax ni demee yow moo tax suñu diggante demee nii yàlla def itam ginnaaw sëriñ Abdou noonu la demoon ak Cheikh Sidi moom Makhtar Cissé bi mu ñëwee sëñ Muntaxa yi Cheikh Mahamadoul Muntaxa ñoo fa àndoon sëriñ bi ni ko cër bu la Cheikh Sidi Makhtar joxoon ci njureel ak xarit dama koy yokk waaye duma ko wàññi ne kon sëñ bi ne ñu nuy nuyu ñëpp daal ne di nuyu sëñ Cheikh Tidiane Samb diko sant bu baax ndax momit wajuram yàlla dafa defoon mo am ci serigne basir ak tiofel lol baat na sépp xam ko mune momit muy jambar di defal di rafetal ngeen xam ni diine ji lépp lenul ne Cheikh Abdoulaye Lahad daf da wax ni bo gisee ñaar di xëccu rek aduna tax

ne Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ni noddu ñaari baat la allahu akbar laa ilaha illallah mu ne allahu akbar lu mu la fekk leen lu ne lu ko gën a war ñëw na laa ilaha illallah mooy foofi mën di jëm te du mën di yàlla foofa doo fa jële dara kon nu jeexale foofu kaddu gi ne di nuyu sëñ Aly Ndiaye bu baax Abdou Aziz ak mboolem rakkam yi di Baye Ndiaye ak ñi fi ne ñi fi nekk ñëpp ak i magam mag yëpp ak bokkam yëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah teraanga ji yaayam moo la ko jox